Euh, bureau yu adjoint nar a occupé bokk yaakaar lu ko waraloon lu ko war waraloon mooy conseil municipal bu ville de Dakar mi ngi toll ci cent conseillers ci cent conseillers yooyu waa Benno Bokk Yaakaar am ci trente-trois conseillers daanaka bureau municipal conseil municipal bi su ñu ko doon def ñetti xaj benn bi waa benn Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko yor